lam ara fil di la wax àdduna sépp boo leen boolee mbooleem xeeti jigéen ñi am boo leen boolee ñoom ñëpp soxna jaara leen ëpp sutura ndax lan li an nii munzu an wulittu keroog bi ma ganee àddina ci ñaari loxoom ilaa anta raaratu ba ben ni may màgge lam tara lii xarqa aadatin fa afsatha musumaa gis ma def lu xotti baax mu dem nettali ko musumaa gis ma def lu kéemtaane mu dem di ko nettali musumaa gis ma jëf-jëf joo xam ne jëf ju hors sujet la ci gone mu dem di ko nettali danne nag bu doonutoon matam gi moom soxna jaara kat dina dem di nettali kéemtaan yooyu mooy def ngir lan di ko puukare woo ci kanami moroomi jigéenam kon sutura si soxna jaara suturaal sëriñ Touba ci kéemtaan yi mu ko doon gisal ci ak ndawam moo tax sëriñ bi toog fi ak nun sëriñ bi bi mu amee ñaari at ba ñu wàccee ko li ñuy wax ñu baal ma ma àbbu baat bi li ñuy wax feral sëriñ bi bi mu tollee foofu ci la mujj a toog ci lalub soxna jaara bi mu demee ba toll ci mën a dox ak mën a wax soxna jaara daan waxtaan ak moom loolu leçon leçon bu am solo la ci jigéen soxna jaara daan waxtaan ak sëriñ bi naan ko dafa bokk ci aaday gaa yu baax yi mooy di taxaw guddi min da bi saalihiina xiyaamul layli booba sëriñ bi jàngagut lu mën a tari waaye ginnaaw soxna jaara nee na ko taxaw guddi ci aaday gaa yu baax yi la bokk muy def su guddi jotee mu génn taxaw fanaane taxaw ci bët ci asamaan ci ëtt bi di xool asamaan si ba bët set mu dem toog ndax boobu jàngagut ci saahir lu mën a tari kon leçon bu am solo ngi noonu ci jigéen ci ni muy éduke doomam ndax jigéen mooy première école ci xale kon jigéen ju nekk war ngaa tànn ni ngay yare sa njaboot ni nga leen di éduquer d'abord bala nga leen di dugal ci yeneen i lox soxna jaara nii la meloon nii la doon yore sëriñ bi mu defoon koo xam ne nag exemple la li ñuy wax la référence de toutes les femmes mooy soxna jaaratullahi Mariama Bousso bi muy am fukki at ak juróom-ñett mokkal na alxuraan ba jàng mbooleem lu góor di jàng ci téere xam-xam njëkk loolu sëñ Mor Anta Sali am na soxna suñuy wax soxna Anta Ndiaye Mbacke soxna Anta Ndiaye Mbacke mii yaay la ci soxna jaara ndax Anta Ndiaye Mbacke Ibrahima awa ña nga ko jur Ibrahima Awa Ñang ak maam Asawaalo mi nga xam ne moo jur soxna jaara seen ñaari bàyyee bokk bàyyi ndax maam Asawaalo Ahmadu soxna bu soo ko jur kon doomi bàyyi maam Asawaalo la di yaay ci soxna jaara Ahmadu soxna Buso moomu soxna Buso mi ko jur di jigéenu Matabara Buso Matabara Buso di maami soxna jaara encore ndax Matabara Buso ak Muhammad Buso mi nga xam ne moo jur soxna jaara ñoo bokk lépp ñu jël soxna Bousso moomu di jigéenu bu Matabara jox ko Maam Maaram Mbàkke mu am ci Ahmadu soxna Bousso ak Sayar soxna Bousso Ahmadu soxna Bousso moomu nag moo jur maam Assawaalo maam Assawaalo jur soxna Jaara ak Sëriñ Bousso be bala may dugg ci tomb boobu nga xam ne moom lay mujje ndax bëgguma monopoliser parole bi soxna Jaara am na ñu mu bokkal ndey ak baay te siiwuñu am na ca ku ñuy wax soxna Mati Bousso am na ca ku ñuy wax soxna Xujja Bousso soxna Xujja Njom Bousso am na ca ku ñuy wax sëriñ bu be ñoom ñett ñii ñoo bokk ndey ak baay soxna Mati Bousso moom moo jur ki ñuy wax njoogu Mati ak Malamine Mati ñooñu ñang lañ sant dëkk ca Afe njoogu Mati moom lañ tudde suñ Njóogu Mbàkke mi yoroon barabu soxna sëriñ Touba bi suñ njoogu Mbàkke moomu dëkk ginnaaw daaray kaamil njoogu mati ñang mii lañ ko tuddee njoogu mati mii moo jur suñ baara ñang njoogu mati soxna xari buso lañ ko joxoon soxna xari buso doomi suñ busoo be la soxna xari buso moomu jur suñ baara ñang suñ baara ñang moo jur suñ sa dex ñam ñoo suñ sa dex ñang ñooñu soxna xari buso mii moo jur ku ñuy wax soxna xujja silla soxna xujja sill moom lañ joxoon suñ mëndumbe mbàkke mu am ci suñ ibra xujja mu mag soxna jaara nag moom meññ sëriñ bu mag bi sëriñ bu mag bi bokk ak suñ Mamor jaara bokk ak sëriñ Habiballahi Mbacke waaye bokk ak ku ñuy wax soxna faatimatu Mbacke soxna faatimatu Mbacke li ñuy wax këf la ko naar yi defoon sëriñ bu mag bi daana wax ne li ma sama borom di may may mayuma ma mën a xam sama rakk jooju fan la nekk te ñoom ñaar bokk nday ak baay bis toog na njaareem ba mu yàgg mu jekki-jekki joxe ay dog ne nañ ma ñaanalal sama rakk jooju wàcc na liggéey kon mënoon naa dund feneen kon te noonu la demee woon kon dafay mel ne waxtu wi euh, ñu ngi ñuy siñaale ne mën nañoo wàcce suñu kàddu dañu ci doon barkeelu rek ngir feeñal ci yéene préparé wuñu woon ngir wax te indi wuñu fi woon waaye peut-être xëy na ngir combler vide yi tax na ñu jox ñu parole bi waaye itam Sëriñ Abdou Lahad Mbacke sama turandoo da daan wax ni dafa am ñaar yoo xam ne da yàq ab ànd muy nangu loo mënul ak gànt loo man bu ñu jërloo paral ñu gàntu ko te fekk man ko mën naa jur leneen buñ ko nangoo te fekk mënuñu ko it mën naa jur leneen jàpp naa ne ñaari yooyu nag benn amu ci waaye daal na nañu xam ne référence soxna yi moom mooy soxna jaara diggam ak soxna Anta Ndiaye loolu daf koo leeral 30 secondes ma bàyyee foofu ci leeral soxna yi exemple boobu ñu jël ko comme référence ci seen diggante ak nit ñuy sëyee soxna Anta Mbàkke moo indi soxna jaara ci biir kër gi ba noppi di way juróom wu jigéen bi mu ko fi indee soxna jaara lam njëkk def mooy ne lépp luy togg lépp luy root lépp luy bale bàyyil may def sama wàlla di la defaaleel sa wàll ndax sama way jur nga du ma wujj ak yow soxna Anta Njaay li ko indi ci kër Sëñ Mor Anta Sali mooy Sëñ Mor Anta Sali beneen soxna la waroon a jël soxna Anta Njaay Mbàkke di jigéenam bi ko war a wàcceel soxna soosu bi ñu demee ba guddi gi soxna si war a ñëw soxna Anta Njaay togg nay laa xam defar na néegam war a wàccee jabaram ci biir néeg bi soxna soosu war mujjul ñëw soxna Anta Ndiaye laaj ne ndax dama araam sëñ Mamor Anta Sali ñu ne ko déedéet mu ne kon nañ ma muur ma wàcce ci néeg bi remplacer ki wor ñu muur ko wàcce ko ci biir kër néeg bi mu remplacer ki war te waroon a ñëw te ñëwut. mu ne fa ba gis ne soxna jaara mais am na yar am nay teggin am na xam-xam war naa mën a ñëw ci kër gi te sëñ Mor Anta Sali góor yàlla la mu dem waxtaan ak way juru soxna jaara ngir indi soxna jaara ci biir kër gi jël ay takkaayam jox sëñ Mor Anta Sali ne ko boo amut loo cane canal ci soxna si mu ñëw ci biir kër gi soxna si ñëwee nag la mu fa nekkee lenn dong la bu xëyee yendoo koor li ko may sëriñ bi laa leen di wax daaneel foofu bu xëyee dana yendoo koor bu wooree dina dem ca tool ya taxan yi bu ñëwee dina togg jox nit ñi ñu lekk bu guddee day fanaane naafila ba bët set moo tax soxna jaara mënutoon a gudd fan fanweeri at ak ñett yi damay wax ne gudd na naw fan boo jàngee parcours soxna jaara ak dundam fanweeri at ak ñett yi da ngay xam ne ku gudd fan la ndax ku dul nelaw guddi di fanaanee naafi la boo xëyee yendoo koor dem ca tool ya taxani dem rooti ñëw ci biir kër gi togg jox donga yi ñu lekk lii moom mënta ànd ak wérug yaram loolu doo nga tas yaramam ci saahir ba mu teel a wàccub liggéey bi ñu ko waxee ne ko soxna Bousso da ngaa war a noppalu ndax lii mënoo koo boole bu guddee nga bëgg a fanaanee naafi la boo xëyee yendoo koor di dem ci àll ba ka ñëw di taxanee ka rootee ka togg jox nit ñi mu ne leen ñaari aaya yi tax mënuma nelaw guddi man wa min alleyli fatahajjat bihi naafilatan laka asa an yabasaka rabbuka maqaaman mahmudan laaya jooju mu li muy firi mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la yàlla wax ne ko bu guddee del jug di naafila soo bëggee am maqaamam ràmm ëllëg yowmal xiyaam soxna jaara ne maqaamam ràmm moomu man moom laa bëgg di ko defal samay nit ak samay soppe moo tax mënumaa nelaw guddi kaanoo xalilan min alleyli maa yahjahoon wa bil asxaari hum yastaxfiruun soxna jaara di liggéey guddi di liggéey bëccëg di woor di fanaanee naafila ba sunu borom jël maqaamam ramu mu jox ko ko la cay firnde mooy lan ndakaaru gii bi ñu fi indee sëriñ bu mag bi mu am fi guddeem yu metti yooya duma ci ñëw ndax ñi ko àttan bëriwut waaye soxna jaara fekk na ko ci biir néeg bi ci kanjal job bii wax ko ne ko ahmadu na nga xam ne li nga war a daj ci ay coono lii du ci dara ndax keroog bis ba nga ganee àddina laa la dégg nga jaayanteeg sa borom ne ko yow sama borom dinaa la jaamu lu nit mës sa jaamu jaayanteeg yonente bi ne ko yow rasulallahi dinaa la liggéeyal lu la nit mës ta liggéeyal soxna jaara ne ko kon na nga xam ne coono yi nga war a daj ci kanam lii du ci dara day doog a tàmbali moom la sëñ Musaa Ka nee na keroog gis na fa sunu maam jaara mu di ko ñaax te di ko dolli daara nee na keroog gis na fa rasulullahi mu dey ko lool dee su ko wax billahi ku weddi lii laajal sëriñ Mor Penda moo fekkoon waxtaan wa keroog mook bànn wax na ba moonu ko daa xabaar te duñ ko duural ku yebu gëm ku yebu weddi buural tuubaa li man amana ahlallaahi waylun li man ankarahum billaahi kon kii mooy soxna jaara kii mooy ki tax ñu daje fi bu ñu fi dajee nag war nañ koy fàttaliku ca nam doon dunde war nañ koy fàttaliku ca nam fàggoo cër bi mu am aw sant mayu ko ko aw askan mayu ko ko aw mbokk mayu ko ko la ko ko may mooy lan takk ndiggam di liggéey di wut yàlla ci borom këram ba sunu borom jox ko ko ci li mu bëgg mu am ko kon nañ ko bàyyi xel bu baax nañ bàyyi xel loolu bu baax te xam ni cër yi moom mi ngi fi ba léegi sëriñ Tuubaa nag kenn la ci yàlla am te jox na ko soxna jaara mu wàcc ci sunu biir raddali yallaahu allazi xat faata min al xuyóor yi wa mithaali faata sëriñ bi nee na ku mel ne man dootul am ci àdduna kon ku mel ne sëriñ Tuubaa moom dootul am waaye nag jëf koo xam ne fu gaa yi baax yi taxaw nga taxaw fa loola jàpp naa ne euh, ku góor góorgóorlu mën na ko waa kon maa ngi jéggalu bu baax ci guddal gi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ Abdul Ahad bu su jërëjëf bég nañu lool yaakaar naa ni waxtaan wi am na solo délégation bii dugg si mooy délégation soxna Bali moom Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général des Mourides xam ngeen ni soxna Bali moom Cheikh Mouhamadul Mountakha moom mare ne bis bi délégation mooy yéeg noonu. di kenn ci Seex Abdul Ahad mi woote bis bi di bàjjanam di wayjuram di léppam ñoom ñooy dugg si noonu waaye bis bi nag ñu jagleel ko kan soxna Amin Tullo mi nga xam ni moo wayjuru Cheikh Mouhamadul Moustapha mi njëkk toog toogaayu Cheikh Ahmadou Bamba tey ñépp ñëw nañu xam ngeen ni